El ñuy aji nag fan yi coow bari woon na lool ci Makka ak Bakka Makka ak Bakka nag eh, na jullit yépp yi nar a dem ren moo xam dañuy aji wala dañuy umra ji ñu dalam xel ne eh, fee ñuy wax Bakka Makka ëmb ko moy fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ajaji won fala la umraaji woon du fenen andak sahaba ya ak ña top ca sahaba ya ba suñ jamono tey jii barab ba ma nga fam dar soppi ku bakka worom xam-xam yi nenañ moy pak bi kaaba gi nek bu ma ko ci si euh bo déggee bar tuba ñi xam cosaanul Tuubaa danañ xam ne mooy fii jumaa ji nekk yiñ koy yiñ ci toftalal gannaaw bi yii ay wanagam lañu woon yii doon ay tool këram da ngay dégg ñoon Tuubaa Daarul geneen kër la woon maanaam li ñuy wax pekk Daarul Rahmaan mooy fi sëriñ Soñ bu dëkk Daarul Minan mooy fi sëriñ Basiiru dëkk ak man Mannaan jii nga xam ne moo nekk ci yoonu Mbàkke waaye Touba moom bu ñu ko waxee te boo xamee Touba dëgg dëgg dangay xam ne mooy fii barab bi jumaa ji nekk rek moo doon kër gi tudd Touba euh, bakka googu yi nag am na ñoo wax ne ci turi makka yi la bokk waaye bakka ci boppam moom mooy fi kaaba gi nekk lu tax ñu ne ko bakka am na waroom xam-xam yi wax ne euh, mooy benn barab boo xam ne rongoñi buur tuuru na fa te miineesu ko rongoñi buur ba tëlatut ay dagam wala ñam àndaloon ndax lan teewlu suñu borom rek waaye kurut buur itam ay rongoñam tuuru na fa ndax bu ñëwee talatut buur talatut keneen kum àndaloon lu dul jaww ji xeeñ xunn jaww yi gëm yàlla waaye benn barab la boobu it boo fay julli aw jigéen mën nañoo taxaw ci sa kanam sës yow tasam xel du dem ci kenn góor xelam du dem ci jigéen ñi taxaw ci kanamam jigéen xelam du dem ci góor ñi taxaw ci kanamam wala ñu sësal kenn du moytu kenn foofu rekk la am feneen foo dégg ñu naan na góor ñi ñëwee nii jigéen ñi ñëwee nii bokkut ak bàkka gi ñuy wax waaye foofa góor talul jigéen jigéen talul góor yàllaa fa woote rongoñ yi buur tuuru na fa rongoñ kudut buur tuuru fa bisub aj gi ci boppam lay gën a fés euh, mën nga bañ a xàmmee kii buur la wala président la wala ministre la wala député la ñéppay bokk sol la weex tàll rek wordu bu dee góor taraxlaayu moo xam ku mu mën a doon ak martaba mu mën a yor bu dee jigéen mu sol nam doon sol foofu sax daa mel ni jigéen moo fa ëpp lii waa jamono wax personnalité jigéen moo fa ëpp jigéen moo fa ëpp góor personnalité ndax jigéen lam doon sol lay sol waaye góor moom dañ ko naan déedéet doo sol xaftaan doo sol dara doo sol tubay da ngay ba noppi taraxalaayoo benn morso bi bokk yi foofu ku fay dem di kafaka ree jëratul ngay dem sab xol dee na ana nag mooy la wër barab ba nga xam ne dañ naan la fii la Makka tàmbalee am na tableau yu koy wane fi mu ne nii boo koy génn ñu ne la fii la Makka yam ba yàgg ñu ne fii la xaram bi tàmbalee fii la xaram bi yam mooy foo xam ne bu la picc tongee sax doo ko dàq doo daggub soccu doo wokkatu doo def dara foofu nag bokk ay caaxaan foofa du ay caaxaan woyofut kon bakka daal cig tënk mooy barab bi kaaba gi nekk aw turam nag turu makka lu baree bare ci alquran la moo tax arab di léebu naan utul xawsa li baariha wala ila baariha lenn lu nekk boo bëggee xam dëgg-dëgg lu mu doon seetal ka ko xam benn ka ko xam lu mu ko xam-xam ka ko defaroon moo koy gën a xam ka ko xam kepp yam ci bu ñu demee ci alquran danañ ci fekk makka makka wa huwa alladi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min baadi an adfarakum alayhim ca fatxu makk benn alquran woowe na ko baladul amin wa tuuri wa tiine wa zeytuuni wa tuuri siniina wa hada albaladi alamin hada albaladi alamin ومن دخله كان امنا ويتدنك ام القرى وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها ويتدنك يتم آه البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام آه بنكو سيدل amna fukki tur ak juróom-ñett yoo xam ne xëy na ëllëwa ji xóot moo ci dul àgg waaye boo ci tudd buñ ko xamee boo ko tuddee ci kañ ko xam danañ xam ne makka nga ci jublu soo nee makka muy moom nga ne bàkka muy moom nga ne albayit yam ca kese ñu daan jàngale naxwu sax ci daara cosaan yi daanañ fit ku xam-xamam màcc ci naxwu lool di ko daaneel ndax dañ ko naan taafal abdu bil bayta li arab ko ma dégg mu naan bil bayta mënta am fekk taafal abdu bi al bayta taafal abdu al bayta bi bayt boobu kaaba gi lañ ci jub mooy fenn ci ëdd fu ñu fu ñuy tawaaf kon tudd na makka tudd bakka tudd al bayt tudd al al baytul atiq البيت العتيق من تي القران وليتطوفوا بالبيت العتيق وهي دنكو البيت البيت الحرام البلد الامين المامون ام رحيم ام القرى صلاح العرش القادس دخلا ديفور اي بكر بمست المقدسة الحاطمة الرأس كوثاء البلدة البنية الكعبة كن ñi yàlla wërsëgal ñu nar a dem ran nañ xam ne fañ jëm du ay caaxaan te na leen wóor na it ku ci dem ba jàkkaarloo kaaba ga na ko wóor ne mooy ga yonent bi tegoon bëtam yu sedd yu ya sallallahu alayhi wa sallam abu bakr omar othman ali ak al ashratu al mubashara ak ñépp يطب سنجنا بس جمونا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناع عليه أن يطوف بهما موي متام ميغي تي بنكو كاباغي موي فا يوننتي بي تانكا يبا فين تولني فا ماغا فا باتاي واي فا ني واخ عرفات دا غاي رومب منا توتي اغجا كودم نكو وور ني في موي فا يوننتي بي نيوول الله عليه وسلم وتل نانكو لغي نان في لا تامل يام bo fa jógee wàññi ko jaar musdalifa it nak ko wóor ne moy fa yonent farawon ay ay dojam dem sànni jamrat la jamratul kubra bu fa jógee jarat mona naa jamrat yami sànni di wàññi di dem nak ko wóor ne fofa rek la du fenen fa la ko yonent don defe tawaful biñu def ci bisu kaaba ga wala bisu ci top yit nak ko wóor ne moy kenn kaaba gi yonent bi daan don aja mak ba bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di ñewat lolu mustahil alquran mi ngi misaal lu munta am naan ñi weddi suñu boroom ci pas-pas ci wax ci jëf duñ dem aljanna mukk ba nga jële gëléem jaarale ko ci bën bënu pusa laa yadxuluuna aljannata xatta yalija aljamalu fi sammi alxiyaat moom la wolof di tekki rek naan négal ba ganaar sax bëñ nga ñëw ma jox la nangam moom la suñ falilu bàkk it waxoon suñ muuru maamu ñag mii mi ngi dund yalla gëna gëna a daf ko jox ay gant ne ko dana bax ci nuyo magal gi lol mooy yi ñu sol ci ay loxo kawasi loxo mu ne ko andi mu jox ko mu tak ko ne ko waaw bax na de waye da nga koy téel yow ak sengor président sengor mag yow ak président sengor bu ñu andé di aji makka ba wacc ci waxu bi ba armal nga jox ma ko ma sol ko loolu kon du ma sa am kon dutuma ko sol waaye ñii aji nañ am lu leen wóor buñ sikk sakka buñ jax jaxe ci ne foofee ñuy dem fa la yonent bi demoon sallallahu alayhi wa du feneen nag xanaa yonent bi ñëwaat ne feneen la te moom lu ma wax yàllaa ko wax te yonent bi dugg na ci buntu boo xam ne moom ci boppam moo wax ne alquran nee na ku ci dugg dootoo génn muy buntu bar sax amutu ba ñi ko waat génn fa dem dem yowmal xiyaama rek moo fa nekk kon ñii dem nañ na leen wóor na seenum xel dal nañ am ak wóolu ju wóor yoo xam ne tey bu ñu la naroon a rey na leen kaay leen ngeen waat ba xam fa fay màkk dëggantaan fa la ñuy ajay dëggantaan na leen ko jaral te xam ne suñu ko jëllu dana ko jaral ñu bari te bokku li tax du ay caaxaan mbolo mu ne gagné ci aduna bi seeni xol di dund di nox noxi sa bo tudde yàlla ñu joy innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajadat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana ñoñu kenn xamul ñaata témer nit ñoy ñaan bu ñu jëgé seen kër ñaan yàlla bañu delu ci wat seen kër faato Màkka ak Madina te seen wa kër dañ leen tay ñeñ duñ leen jooy duñ leen ñaanalati dañ naan ak ñaanam nangu na yàlla na ak sunu ñaan dugg ci biir ñaanam gu nangu. Album audiovisuel